kër na Fall Diaw Pape Modou Bousso Diop Serigne Serigne Massamba salve. Salve, salve, salve, salve. bak ko grande di ko léegi di ko léegi

Copa do Faro. Satu kali. Kali lebar orang. Mana rambai? Kami. Kami. Kami. Kami. Kami.

jaune noir yi waaye ndeysaan way jur ñoo def euh, bleu yi ndeysaan di leen ko toppal fii ci stade municipal de Hann bel di leen xamal ne incha allahu rabbi lépp loo xam ne day xew daañu leen ko toppal colonel moo am lycée way jur ñoo am colonel bi noonu di wax ne bii mooy match bu mujj bi di wax ne ñu ngi ànd ak suñu cameraman yoo xam ne ñooy ànd ak ñun saa su nekk ci direct bi sànni nañ bal bi mu dem mariste de ñoo dégagé bal bi noonu mu ñëw ci numéro 20 bi attention arbitre arbitre nee na coup la grand seen bi la di jaajëfal suñu auditeurs yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ak bitim réew fi ngeen ne moo xam seen saali la moo xam seen bërëbu liggéeyukaay yi la moo xam transporteurs yi ñu ngi leen di ziar fu ngeen nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di ziar di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di wax ne way jur ñoo yor bi noonu sànni nañ ko ci kaw wali daan bu yuxum géey ndeysaan moom tamit yaakaar naa mu ngi dépendre ci ñaari mat ci match bi ay see jur attention Mariste 2 ñoom seen numéro yi 20 attention attention fatt nañ foofu fatt nañ foofu di wax euh, dugg leen dugg leen cliquer live bi mu yéeg ci kaw di bëgg ci yow di la ñaanal attention laa ilaaha illallah Lambaye xaw naa ñaaw waaye défenseur ba ñëw na génne bal bi bal baa ngi dox attention way jur ñu war bal bi way jur way jur jur nu sa yaay tudd way jur way jur way jur way jur way jur bal ba génn na bal ba génn na ndeysaan tëgg mi daf may fàttali keroog bu yonent bi gàddaaye ñu di ko wéyal talaal badru alay na saaru tëgg bii moo tax ndeysaan delloo si nañ cosaan delloo si culture papa ñu ngi laa ziar ñu ngi laa ziar comme ndeysaan na ko na ko xaj ma xaj Mansour Mbaye mu wax ñu ngi laa ziar waaye ndeysaan ñu ngi leen ñu ngi leen di ziar di leen bëggee di wax képp ku nekk ci stade municipal de Hann Bel-Air ñu ngi laa ñaanal nga ñibbi ci jàmm ak salaam waaye ambiance laa ilaaha illallaah nemmeeku nañ ko taal nañ pétard ya di jaajëfal ndeysaan suñu cameraman yi nga xam ne ñaari seen ñoo nekk sama wet vraiment ñoomit ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi di def liggéey bu am solo séento asamaan walaay jarte ku sante ku génn asamaan si rek ndeysaan ku génn sa kër daa daa gis asamaan liggéey bi ñoo ko bokk nañ ko yaatal waaye ndeysaan attention mariste de attention attention di wax dugg leen te abonné dugg leen te abonné di wax ne Maris te ñoo yor bal bi doxal nañ ko Maris Teude nag yomb na ñoo xamee numéro 85 80 numéro 30 laa ilaaha illallah lii mbaa du ay bomb ay bomb lii mbaa du ay lakkor moro moro morochène allahu akbar kaani gaa ngi ñëw de ay waay mbaadu lii du ay lakkar moroson ay waay lii mbaadu ay lakkar moroson attention attention attention laa ilaaha illallah gardien ba jàpp na bal ba tëdd ndeysaan lii daan nañ ko gis ci événement yi waaye ndeysaan lii pour neexal stade bi la ak supporters yi ñoo koy def di wax ne amateur de foot kenn ku nekk yaa ngi toog di dund li nga xam ne mooy match yi moo tax sport dafay dafay boole war te tàqale sport mën nga cee jëlee ay xarit yu fidèle mën nga cee jëlee ay àndandoo yu fidèle ndax sport dafa war a boole war te tàqale di wax vingt quarante minutes ñoo ngi fii ci stade municipal de Hann Bel-Air match bu mujj bi nga xam ne mooy final bi nga xamne ne capital bi nga xamne ne mooy jeexal bi dox ci diggante IC Mariste 2 ak wayjur kuy sa yaay wayjur kuy sa bay wayjur motax wayjur lu jara fonk la sanni bal bi ci ko mu dem boko mbukul bokul xam boko mbukul xam yalla xam nako boko defulon xam de mbeukal nako gol ba lay see waajur lay Mariste 2 lay see way jur ñoo def bële balaa yi sànni nañ bal bi grand xawal sëgg tuuti rek sëggal tuuti rek waa tuuti rek na ndigali dem tuuti jërëjëf gara borom rasta yi sëggal tuuti rek waaw sëggaatal tuuti jërëjëf waaw amul problème sëgg leen rek na na ndigali yegg xam na ne seen ndigg yi baaxu sax da ngeen a teel nekk mag ndeysaan sama classe gi yëpp seen liggéey dafa yàqu ndax ndeysaan doo am trente cinq ans sax ndeysaan sëg ndigg gaare boo amee soixante ans foo jëm bal baa ci kaw attention way jur ñoo sànni bal bi noonu mu dem ci kaay mariste 2 yi mariste 2 ñoo moom tous bi noonu di leen jaajëfal suñu mbokk internet yi moo xam yéen ñi ne ci réew mi ak bitim réew mo xam France Belgique Allemagne Italie yeen ñep ñu ngi leen di ziar Espagne ñi jaar ci mbënd mi ñu ngi leen di ziar ay guerrier ngeen de ñoo doon doxal nonu waye bi moy jeexalu daje bi fi ci stade municipal de anne bel ay ay way jur ak mariste de Maristes 2 xanaa moo moo nekkee ci côté bi ci ginaaw stade bi ndeysaan maris dëkku personnalité yi la waaye ndeysaan yaraax dëkku lebu yi la ñooy dem ci géej gi andi jën ñoo mën a jaar ci gaal gi dem Espagne te dara du leen ci mën a fekk ñoo mën a féey ba gore ku ne ak la nga man Maristes 2 ñor bal bi di ko doxal doxal nañ ko ci excentré bi mu dem da ngeen may jàppale foofu ndax saa bët yëggul foofu tuus la wala cornel tuus la jërëjëf maam Cheikh première mi-temps bi ndax temps bi départ na toll ci 10 minutes wolof naan fukki minutes. laa ilaaha illallah Roberto Carlos na ko bal bi romb kaay bal bi romb na kaay muy simet attention attention laal na tànk yi daanu lay see mariste de ñoo yor bi di ko doxal attention profondeur profondeur gardien ba génn na laa ilaaha illallah defal mu ga defal paas bi mu gaaw bala la ci musiba fekk bal ba génn na ndeysaan yàlla ji taw na sànq lay seeway jur attention lay seway jur numéro wit moo nekk ci ruq ba lu muy def defar na ba mu jekk sànni mu contrer ci défense bi gardien bi daw ndànk jël bal bi looloo xew fii ci stade municipal de Hann tey dimanche la tolloog 22 septembre 2024 di ñaanal Diomaye Diakhar fay jub te jubal ku mu neexul génnal réew mi dem ku mu neexul toppal fële suus geeg yëpp day jeex ci réew mi ah waaye ndeysaan 80 bi moo jot bal bi ñoom seen numéro yi xanaa sëriñ bi moo leen wax na ngeen ko def ay 80 66 44 ñom do gis ku sol ab numéro 7 de wa mariste 2 waye nak football bu graw lañ yor sumay xol sen football dama koy méngale ak footballu Angleterre football ba da gaw football ba da gaw waye ndaysan li buñ ko yak ndax ndaysan nawetaan sanni na balba, attention attention contrôle poitrine <laughs> la ilaha illallah ndeysaan lay see lay see waajur ñoo génnee bal bi noonu lay see wuy jux ñoo génnee bal bi noonu sànq déggoo maris wala boog déggoo maris moo war a daje ak attention raadateer na ko attention numéro 10 bi lajj na ko ñu sànni bal bi mu dem ci axe central bu déggoo maris wala bokk mu dem ci axe central bu Mariste 2 mu doxal bal bi ci ginnaaw jox ko góol bi góol bi doxal jox latéral bi latéral bi topp ci bal ba contrôler ko sànni ko mu dem ci ak attaquant bi mu doxal dem ci excentré bi xale yaa ngi doxal bal bi de barki yu mam baabam mais bal ba génn na en tous ndeysaan sonnoon naa waaye ba ma jël ah? Ah? Ah? sonnoon naa parce que wax dafa métti man kenn la mais nag yàlla daf ma dimbali bu ma naanee kafe rek damay taxawaat wax mooy sama liggéey mën naa wax ba suba te micro bi du daan di wax ne na nu na nu ñaan jàmm rek ndax jàmm ci di xew en tout cas wax xamal li ngay wax li ngay wax du de wuy jur ak Maristes 2 ñooy doxal Maristes attention lu muy def sànni na bal bi mu dem ci ak central bi Wayjur Mariste 2 bal baag ca kaw loolu mooy jollu mbeer supporter yaa ngi commencé feeñ Walidaan bu yuxum Gueye fii la dépendre pour qualifier lay see Walidaan bu yuxum Gueye fii la dépendre pour qualifier waaye quart de finale bi nga xam ne moo war a am ci phase départementale yi dox ci diggante déggoo maris ak Walidaan ma nga war a am samedi fële ci stade municipal bu parcelle dëkk Jamil Sané lolé yaakaar na ci luy baxla ben ruku du sedd ndeysaan di nuyu nappkat yi géej gi ak ni mu mel waye ngeen def sen jom ak sen jambar ni il faut ngeen ngeen lekk jeun motax ñi ngi leen di ziar di wax ne batay marché baa ngi dox xale yaa ngi doxal mariste 2 ñooy doxal attention lan mooy xew numéro vingt mooy doxal moo nekk ci centre bi jëm na ci camp yi ba mu nekk mu wàññeeku jëmaat ci digg terrain bi loolu mooy xale laa te damaa mën a football arrière nañ bal bi mariste 2 ñooy doxal capitaine bi doxal na ko jox latéral bi latéral bi ndeysaan doxal bal bi doxal bal bi jox excentré bi attention lan mooy xew ndax day sànni ndax day sànni jox na ko numéro vingt mu doxal moom écarte danger attention arbitre ba tëb na lan mooy xew ba tey Maristes ñooy doxal Maristes 2 ñooy doxal am nañ ko ak juróom-ñeenti paas barke Rasulaay xale yi dañoo mën a football gone Maristes yi neexaluñ kenn ci bal dañuy football comme Real Madrid dañuy football comme Barça bu Lionel Messi waaye bal bi déggoo bu wala bokk Maristodo ñoo déggoo bal bi xoolal seen gardien bi day football dañ koy jox bal bi mu football ak sa central bi bu jëlee bal bi du ko sànni de day jël bal bi joxe ko mu jox ko latéral bi xoolal loolu waaye waaye xale yi yéen a mën a football Maristodo wallaay ku ko waxul daa soxor allahu akbar xale yaa ngi football stade municipal de Hann Bel-Air na muñ France ci football na Angleterre ci football ndax xale dañoo mën a football. waaye waaye Alioune Cissé Alioune Cissé yónnil sa conseil ñu ñëw xool fii ay sóoram ñii mën nañu jël place Sadio maane mën nañu jël relève bi ndax ay xale yu mën a football ñoo fi nekk pourquoi boo jógee rek yam Ndakaaru gol ba genn na sanni bal bi legui legui waye mariste Maristes ñu wër bal bi diko doxal ño def jaune noir. jégalu problème bu teg lu mu woon waaye dellusiwaat nañ fii ci stade di wax ne waaw wax ne match bu mujj baa ngi nii dox ci diggante ay ASC Wayjur ak Mariste 2 ñoom ñaar ñu football 22 minutes ba tey dara xewagul. waaye match bi football bi jaar na yoon neex na ASC Mariste 2 nag ñoo gën a rafet football ndax ñoom seen tactique de jeu dafa jaar ci yoon ba tey ñooy doxal noonu xoola numéro 80 bi ma ngay dem juróom-ñaari joueur nga bëgg leen teg loolu du am sa waay tëdd na ci bal ba attention latéral bi laa ilaaha illallaah jàpp na ko attention jur waay jur waay jur waajur waajur ba tey ñooy doxal sànni na bal bi si point de pénalty bi attention attention dee leen lamba dee leen lambakaay attention bal ba génn na dévié défenseur moo ko dévié <coughs> sa day dem attention bal ba nanu mooy nanu mooy <coughs> jërëjëf ndeke ay ay ay gardien fi jërëjëf ndek ay góolam fi laay see mariste ñoo doon accéléré noonu jëm ci kaa waaye ndeysaan ba ñu romba bañu romba axe central bi mu ne leen du fi fii mbaam du fi naanee supp allahu akbar mariste de football dañ ko jàng attention attention oh quelle occasion quelle occasion dugg leen dugg leen te xam ne avec man wallaay du ngeen am lu leen métti da am lu leen neex de barki yu mam baabam parce que pulaar mooy wax loo for mu réer waaye loo doon mu dëgër ndeysaan ñu ngi doxal lay see way jur ba tey ñooy doxal noonu temps bi mu ngi toll ci vingt cinq minutes maanaam ñaar fukki minutes ak juróom ci premier mi-temps bi ba tey dara xewagul caax yi yëngu yëngu benn yoon waaye ay say jaar waali ci première match bi dajé na fi ak renaissance yeen ko ñetti bal ci dara ASC renaissance ñibbi këram ndeysaan ASC bu mag bi ASC ama bi mo dess nak ci demi final bi mo qualifié ci demi final bi muy wali, match benen bi doxon ci digënté montagne 6 ak kipp ndaysan montagne 6 moko gagné ci benn bal ci dara. kon ay ASC Montagne ndey saan qualifié na ànd ak jaarawaali waaye daal lii xeeñ lii xeeñ jëm ci wàlli daan neexul match bii ci la daan di xamee ndax dana wàlli daan wala day wàlli toog allahu akbar 2024 son excellence Diomaye Diakhar Faye toog ci réew mi ndax coupe bu bees mooy am équipe bu bees mooy jël coupe bi yàlla rek a xam waaye en tout cas lépp changé ministres yi changé nañ DC yi changé nañ maire yi sax dindi nañ leen sànni na xaj pour salaat yeneen maire yu bees ndax nag coupe bi day am équipe bu. il faut que attention attention attention attention Maristes 2 ay waay bal ba jaxasoo na jaar ca tànk ya laa ilaaha illallaah coup am way jur ñoo am coup noonu way jur nag moom tur bu baax la ndax nit mënut a dem saa way juram loo am. ak no mënti ki mel ak no mënti ki tollu Seyna bu Ndong ngi ziar di la bëggé di wax merci beaucoup yéen koy neexal fofu mo tax ma diko neexal fi sonna na waye nak courage lam suma len déggé rek attention lay sé wayjur jur ba doxal coufran coufran directement ndax dañ koy door ci kay mu dugg allahu akbar maxamba tojul di nuyu maxa moom tamit ndeysaan xale bu yaru ndeysaan di nuyu suñu cameraman yi ci suñu wet nga xam ne ñoom ñoo yor média yi di siiwal loolu la loolu la naan ñooy siiwal xabaar yi li ci yéen yi moo tax nag ami internet yi yéen li ñu am ci yéen mooy abonné

kontaan nañ ci yow kuy sa maam Lat jot Diop nga xam ne fii la nekkoon ci Sénégal xeex xeex fi loo xam ne ñu bëri ñu ko doon xeex ñoom Alboury Ndiaye attention qu'est-ce qu'il va faire Lamine bu Adja Daba Njoon séeri yaama yaama borom ceeb yi neex yi <laughs> kooku bu toggee yuxub ne na bu jaama moo aye ma ne ko defal ndànk rek mu ne ma ceebu yaama mënu ma ko rate yaasa yaama munu ma ko rate yaa seeri yaama Lamine Gueye ñu ngi lay ziar kuy sa daba njoon mu baax mi ndeysaan di jigéen ak tubaarkàlla alaaji Saliou Njoon ak alaaji Njoon alaaji Saliou Njoon moom lañ dénk suuf si Ndakaaru këram ak kër président Macky Sall nii ñoo dendee fële ca Mermoz alaaji Saliou Ndione ndeysaan dina jaay ci Eliou ndeysaan lan moo xew lan moo xew gisuma action bi lan moo xew lay see Mariste de ñu yor bal bi di ko doxal di wax ne football nañ lu tolloog 33 euh, minutes maanaam fanweeri minutes ak ñett ba tey score bi ubbeekoogul ci ñaari équipe bi waaye lay see way jur ñoo doxal numéro 13 dindi na benn jour bëgg dindi keneen kooku ne ko doo fi jàlle koku ne do fi jalle numéro 15 mo tek bal bi di nuyu wa ASC walidan ASC Montagne jaro wali Mbaxal sama équipe ba Mbaxal ngi len di ziar di wax ni équipe bu mag ngeen dara jaxalu len jël ngeen ay coupe yu bari ay champion ngeen ay ndaanaan ngeen ndaysan ku tek sa équipement mën football 90 minutes wallahi jambar nga ku la xas daa ñàkk jom bu ñàkkul jom xam ne ku dugg ci terrain xam ne góor yàlla dëgg mooy dugg ci terrain waaye sama classe gi nga xam ne wax lañ ma ne boo leen dugalee ci terrain ndaw saaga ndey dañuy saaga seen ndey bañ génnaat ndax xamuñu dara moo tax joueurs yi dugg ci terrain bi vraiment ak nu mënti ki demee da doon paas ci gauche bi ndeysaan taan na boppam ndax na nga passé moo baaxul dafa contrôle à droite paas ci gauche bi yàlla dogal mu daanu ré bopam jógaat top ci bal bi loolu moy football waye suñu champion bangi, suñu sunu mbër ni combat bi faw ñu teggat ko ku dem ses ñu ñu yóbbu la police attention hors jeu arbitre néna hors jeu la ndey Fatou aladji Lamine Maguette Gueye Gueye la ziar dile beugé di wax na tay manki nga fi manam fanweri minute ak juroom ben di wax ne dañu leen ñewal ci pular yi onon bandirabe mi salmini on mi juré on kadi hande ko marché maudo hande ko match mo nda hoorema layse mariste 2 laysee way jur ha joni ha joni ko zéro zéro onon bandiraɓe mi salmini on mi juuri on vraiment hande ko dimanche hande gonɗen dow koye stade municipal de anne bellaire vraiment min beltima min mbi golle moon yo feewa encore une fois min wawa yobde moon waye bal baangi dox ba tay ñu ñëwaat ci kallam ak wolof gi ndax fi ci Sénégal kët langue nationale pulaar yi nenañ nañ. Laysé way jur ñoo sanni bal bi nonu Laysé Mariste de mbëkkaat ko numéro 13 mooy bal bi day provoquer waye wàññi na bal bi ci ginnaaw mu dem ci latéral bi numéro 23 wàññi won na bal bi mu dem ci ak central bi mu daldi ñox ñoxal jox numéro 6 wala bok numéro 15 mu delo ko ci benen ak central bi numéro 4 bi. mu doxal ndeysaan xale yaa ngi doxal ak six pass way jur ñoo doon doxal ak six pass ñu perte bal bi muy tous di xamal ne football bi ma ngi jaar yoon waaye ba tey score bi day des ci zéro zéro lay see way jur sànni nañ bal bi xool attaque à pointe bi ñu def ko ci moom ak sa bi ne déedéet fii mbaam du fi naanee supp bal bi génn na astaghfirullah saaga yi ñaaw nañ de attention attention dugulen, dugulen di ngeen am lu len neex di ngeen am info xana xamone media information la bu wéré lèr ñi ñu top la bu féké nak li ngay wax dara du ci dëgg kenn du la top bu féké da ngay manigaasi kenn du la top waye di wax né ba tay mariste de ñoy doxal jël bal bi def ko ci attaque à pointe bi waaye ndeysaan wuy jur ñoo ñew ak sen ak central bi mbëkk bal bi wala boog sànni bal bi ci tuus bi Lycée Mariste 2 ñoo moom tuus bi noonu di jaajëfal Père Souxa mu ngi noonu di daw ndeysaan mu ngi noonu di yogg-yogg yi wala doog di yëkkam-yëkkam yi waaye daal en tout cas li ñu dem ci mi-temps bi parce que dem nañ ci 43 minutes ci première mi-temps bi Achico yaa ngi jolli fii ci stade municipal de Hann Bel-Air xale jigéen yaa ngi sinap seen bopp maa ko wax bal baa ngi dox attention xale yaa ngi doxal ay seen mariste 2 seen latéral bi moo doon accéléré pour dem mu laal bal bi fëkkastalu numéro 13 bu ay see wuy jur jox numéro 15 mu doxal xale yaa ngi doxal ay see wuy ñooy doxal seen milieu terrain bi changé na passe bi mu gaaw jox numéro 13 mu doxal tuuti moom day imposé numéro 12 lan mooy xew attention lay see mariste ñooy doxal l'ASC Mariste 2 ñooy doxal ci excentré bi arbitre waxul dara 44 minutes fii ci stade municipal de Hann belleer air xaw ma ñan ñoo yor ñan ñooy asiko yi noonu Mariste 2 ñoo yor yi noonu ñu ngi ñu ngi supporté muy jaar yoon vraiment lii ku ko def mooy gunge nga sa équipe jàppale nga ko vraiment équipe day am ay supporters yoo xam ne ñoo koy jàppale. waaye day ama am ay amateur de foot yoo xam ne ñoom it ñoo ñëw toog ci public bi di seetaan match bi waaw nee na nee na match bi dañ koy calculer pour l'instant nii ñoom ñaar kenn ku nekk yaa ngi football mais yaa ngi yaa ngi calculer arbitre nee na bal bi arbitre nee na mi

moo jot fii ci stade municipal de Hann Bel-Air di ziar mboolem auditeurs yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun di ziar 18 millions d'habitants yi nekk ci réew mi ak bitim réew match bi départ na Mariste de ñooy doxal noonu ci digg terrain bi vraiment ñu ngi leen di ziar di wax kontaan nañ bu ñu bëggee benn jàppale ne mille fois lañ leen bëgg ndax ndeysaan internaute ki la ciy topp vraiment mënoo koo fay waaye way jur ñoo yor bal bi di ko doxal ci wetuk ndey joor gi latéral droite bi moo doxal ba neex ko mu sànni bal bi ci attaquant pointe bi waaye Maristes 2 seen ak central bi ñëw dévier bal bi ba tey xale yaa ngi doxal xale yaa ngi doxal Maristes 2 ñooy doxal numéro 99 ma ngay dem ci ruq ba ma ngay essayer di xool ndax day dem ci ruq jël na bal bi delo ci wat ko ci digg terrain bi xalé yi doxal ñang koy pass pass lolu moy am ndjay indil job waye capitaine ba jot na bal ba profondeur nako mudem mu dem ci kay mu dem ci gardien ba directement mu genné ko bal bi dem ci touche yi bi sowee l'honneur titeur mom bu contané attention attention contre attaque moy am ñet attention loy def ni sànni na bal bi doon xool góol bi waaye jàppal bal bi bala la cee leneen a fekk de gardien gardien bu woy jur moo jàpp bal bi noonu da kaa bëggoon a jàpp ba ci yàgg sax mu ne xaaral ma joxe ko noppalu mu jox ko axe central bi axe central bi ndeysaan mu joxaat beneen axe central bi mu doxal delloo ko ci góol bi ndeysaan ñu doxal ko ak juróomi paas ña ngay paas paas bal bi. loolu mooy am njaay indil Diop waaye nag perte nañ bal bi Maristes 2 jëlaat bal bi di ko doxal ci digg terrain bi doxal nañ ko paasante nañ ko perte ko attention jàpp na ko waaye di wax ne noonu ci deuxième mi-temps bi ndax temps bi départ na ba toll ci une minute treize secondes coup moo am lay see jur ñoo am coup seen numéro 15 bi sànni bal bi mu dem ci excentré bi mu doxal jox numéro 12 mu contrôle contrôle bi ëpp attention lal na ca tànk ba koccal na tànk ba mu daanu dugg leen te abonné te partagé mbir dugg leen te partagé cliquer bi nag mu gaaw loolu moo ñuy may mën a may visibilité te ku dugg na nga abonné abonné du la yàqal dara di. nenañ adina ku fi ñew amo xaaliss da nga seetaan waye ku dugg ci live bi seetaan kessa dem baax na de waye nak abonné len ta partager ndaysan bal baa dox xalé yang koy doxal l'axe central bu lay see mariste de ñoy doxal football ak tubab lañ yor ak tubab lañ yor sanni nañ bal ba ci kaw mu dem ci excentré bi waye nak <laughs> ndaysan way jur ñoo récupéré bal bi noonu di ko doxal bal baa ngi dox ci kaw di jollu mbeeru tël nañ ko mu demaat ci kaw ñu jollu mbeeru bal bi waaye axe centrale bi attention ndax dëmut arbit doo ko seet arbit xoolal joueur boobu ndax dëmut lii laa bëgg bu leen seetaan arbit taxaw na pour di vérifier ki nga xam ne moo gaañu noonu la arbit c'est le maître du terrain waye way jur ñoo yor bal bi sanni nañ ko mu dem ci axe central numéro 50 55 mu dem ci gol bi gol bi doxal ko jokk ndaysan sen axe central bi mo tak capitaine bi sen axe central bi sen axe central bi mana naane ne bokk na ci axe central yi gëna for fort attention la ilaha illallah hors-jeu mais arbitre dafa doon sétane di xol ndax bal bi dana dugg mais malheureusement dafa lal bal bi don ko pass kan yi bal bi jéggi kan yi dem bal bi dafa jéggi kan yi Mariste de ñoo xaw score bi ci bi bo xamne ne kenn du ko accordé waaye arbitre mo setan lolu mais malheureusement ay sewuy jur sen ñaari jour ñinga neul ci wetuk càmmoñ nga di talal sen tank manam di ye tank yi xamna dañuy lay way jur ba tey ñooy doxal attention waaye di leen fàttali ne samedi match bu rëy mooy am phase départementale yi fële ci Parcelles Assainies dëkk monsieur Jamil Sané monsieur le maire diggante déggoo mariste ak ay see wali daan ñoo war a football quart de finale ci phase départementale yi loolu match la boo xam ne final la moom waaye mariste de ñoo yor bal bi jour bi jëm na ci bal bi bam mu neex mu jéggi bal bi contrôler bal bi xolé bam mu neex mu sànni bal bi waye demul ba tey ñoo yor bal bi numéro 44 attention attention attention la ilaha illallah la ilaha illallah arbitre néna hors-jeu arbitre néna hors-jeu est-ce que hors-jeu est-ce que hors-jeu arbitre bi néna hors-jeu waye bo fanaanee ba la waaje nan bo soucé ba yak waye bo lengé ba yak attention attention attention attention attention première bi ah attention bu ngeen sàgganee score bi den ubbeeku laysé laissé laissé way jur ñoo bal bi di doxal numéro 17 passe ba baxul profondeur la mu dem ci profondeur la bal bi dem wa ki lu mu def ni def na ay këlëram ba taaj waaye en tout cas Mariste de ñor bal bi mu dem ci góol bi góol bi doxal jox ak central bi ak central bi garder ballon bi jox milieu terrain bi mu doxal defaat ci benen ak central bi capitaine bi mo nek nonu mom day jël bal bi paas wala mu xuus sànni ci kaw Maristes 2 Sène ak central bi mën na football te rôle capitaine dëgg lay def ci terrain bi attention cotte na bal bi daanu paas na ko paas ab ginnaaw way jur way jur lay see way jur numéro 17 taatu na taatu na Maristes 2 ñoo bal bi seen latéral bi attention numéro 80 day dem numéro 17. mariste 2 attention Layse Wayjur Wayjur Wayjur attention mariste 2 42 44 attention 55 22 lu xew benn sànni nañ bal bi mu ñëw ci latéral bi mu mbëkk bal bi mbëkkaat naka sànni nañ bal bi mu dem bal bi yaakaar naa dootu dellusiwaat bal bi yaakaar naa dootoo dootu del siwaat temps bi tollu ci sept minutes ci deuxième mi-temps bi temps bi tollu ci sept minutes ci deuxième mi-temps bi ñuy jaajëfal ministre de l'intérieur taxawaayam sécurité bi ci Sénégal waaye di nuyu monsieur le maire Babacar Meng honorable député ñaari ndombol tànk ci réew mi ku ko am doo yaafus politiciens yi nañ bayyi xel ci population bi waye di fenn rek di tek nuñu mëna def ba jël pouvoir dinañ ko def buñ ko jëlé bo len woy do len jot te ndaysan buñu xex pour gagner dañuy ñëw di naan soow ci sa pegg buñu gagner jeex lool moy lan fi ngeen ne ñi ñëlen fa tek de len jël sen téléphone ben politicien amul ben bu ci bu ci jël jël jël jël jël lim bëgg am ba paré manam dess ci population bi ku jël ku jël ku jël li ngay jël dem nga dëkk fenen bàyyi sa population ñuy souffrance alors que nga bëgg am deuxième mandat do ko fi amé numa neex lay wax dama tang di wax remplaçant mo am non way jur hmm? nañ bayyi niñ mel bo matam matam non lañ mel boo demee Touba noonu lañ mel attention numéro 83 mooy doxal numéro 88 jox nag attention wayjur numéro 12 seen capitaine bi sànni na bal bi mu dem ci ginnaaw capitaine baa ngi leen di yuuxu ne football leen génneel ma fii commentaire yi ma attention bal baa ngi dox attention lan moo ci xew profondeur profondeur passe bi baaxul di wax ne ñii ñoo ànd ak ñun ci deuxième mi-temps bi ñi ngi ziar ndey Fatou si ñi ngi la ziar di la di wax asamaan si si suuf si si ndox mi si Alaaji Malick si bal bi génn na tuus bal bi génn na ci tuus ba Maguette Gueye fidèle auditeur bu IMG TV ñu ngi lay wax ne chapeau à toi vraiment kontaan nañ ci yow yaag sa na aw buru këram ba ca kër ga di la toppatoo nag vraiment di nuyu nag sunu yaay ju baax ja Adja Ndey Daba Njoon ndeysaan tukulóor ma wax suy mu mujj ba mu mujj bi ngel bona da boo amee yaay ju baax papa ju baax noo mën a def baax boo benee mu jaaxal ñëpp di wax ne ba tey ñoo ngi fii ci stade municipal de an Bel-Air bu mujj bi dox ci diggante ay ASC Wayjur ASC Mariste 2 dem nañ ci première mi bi mu jeex 0-0 ñu dellu si waat ci deuxième mi-temps bi football lu tolloog 11 minutes ba tey lambaay wala boog ba tey njaw ma ngi des aw xambin arbit nee na na arbitre lan lay wax arbit am na lu muy wax de génneel ma commentaire yi waaw ñu ngi laa siyaar yow tamit di bëgg ci yow nag vraiment di wax ne yow tamit nice na nice na kontaan nañ waaye Maristes doo ñëw sànni bal bi noonu mu dem waaye way jur rekk récupéré bal bi Mariste 2 ba tey ñoo yor bal bi ci wetu ndeyjoor gi di ko doxal attention coup franc Mariste ñoo am coup bi noonu Saliou Ndiaye Maguette Gueye Ndeye Fatou Sy kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu Mohamed Faye fay pend biram wagaan borom borom C2F ñu ngi laa ziar tamit di wax kontaan nañ fu ngeen mënti ki nekk rek vraiment kontaan nañ ci yéen waaye Koufra moo am 13 minutes lay see mariste de ñoo am Koufra noonu lay see mariste de ñoo am Koufra bi noonu ñoo teg bal bi kan moo ko teg numéro 99 arrière na jël na ñaari pas sànni na bal bi mu dem ci gars yi directement waaye bal ba dafa jollu mbeeru bal bi dafa jollu mbeeru nekk simet walli daan bu yuxum géy joueurs amateur de foot yi yéen ñi ne Espagne France Belgique Brésil yéen ñi jaar ci Nicara Nicaragua

ma ngi nii ba tey waa xanaa xanaa lay see way jur bu ñu defee nii dañuy qualifié kon waajur qualifié na moo tax bu gardien bi jàppee bal bi raam sukk julli ñaar rakk ndax dafa qualifié bu ñu jàppee bal bi day julli ñaar rakk ne asalaamaaleykum sànni bal bi waaye Maris Tudé mu ngi noonu mbëkk nañ bal bi attention match bi il faut ñu calculé way jur mo neni, fim ne ni na bal bi way jur ASC way jur di wax commentaire yi macha allah bëgg nañ ci lool kuy sa yaay nga mer fo dëkk nga mer da fekk sa yaay baxul fa nga dëkk baaxul Moussa Moussa Diop ñu la ziar nañ bal bi mu dem directement ci bi Moussa ñu ngi lay siyaar ndeysaan jërëjëf Mouhamed waaye Mouhamed waa Matam waa Nabaaji siiwal waa Bukki Jawe ndeysaan waa ngi jëloon waa Daabiya waa Culoñ waa Añam waa Woore Fonde ndeysaan sama dëkk waa Seedo waa Caareen Sinthiou Tafsir Seedo Abbas seeɗo sanndiraaɓe ceel paɗe saare liw tayba moko tafsir balla jennga ndeysaan samay mbokk lañ hontorɓe ak siir woro di nuyu waa tool ya waa ndulumaaji dembe waa ndulumaaji funeeɓe waa wuro alpha waa mboolo yel samay samay ndeysaan samay dëkk la dama faa ñaay daan dem ci mbiix mi ak mbëqal mi di mëkk ci di mëkk ci susal bi coup moo am en directement coup franc moo am noonu coup bi direct la lay seewuy jur ñoo am coup bi noonu attention gauche magique sànni na bal ba ndax du romb kaay allahu akbar mbëkk nañ ko mu dem ci deuxième poteau bi bal bi génn bal ba génn bal ba génn na ñu doxal bal bi ci ak central bi 11 minutes wala bok 17 sept minutes lañ gum mohammed mohammed fay Moussa Diop kontaan nañ ci yeen magat gey ndey Fatou si vraiment kontaan nañ ci yow bal baangi dem ba tay attention numéro 44 moo bal bi ci digg terrain bi doxal na bam mu nekk mu delloo bal bi ci ginnaaw gardien bi ñëw na sànni bal bi mu dem ci touche munoo gaawee noonu ndeysaan la ngay wax dégg ko de ma ngi ci biir terrain bi concentré wu xale yaa football de waaye mu ngi si ndox yaa ngi jëlaa ci terrain bi mu ngi si ndox yaa ngi jëlaa ci bi di wax ta abonné bu baax baax te partager ami internet magat Gueye bo amul jam kuy am jam ci rew mi attention numéro 4 attention def na profondeur mais baaxul ah gaa yaa ngay jël muru nyari di saraxé ñaari kilo muru ñaari kilo muru lañ jël di ko saraxe sëriñ bee ko digal deug nañ ko ci digg bi ñu def ko ñenti sam di ko di lay see way jur lay see mariste ñoo jël ñaari kilos yu mburu di ko saraxe allahu akbar yàllaa ji màgg la màggat gi boo amul jàmm kuy am jàmm ci réew mi yaay suñ mag di suñ lépp di ñu jàppale attention bal bi attention raad teer na ko mu génn waaye ndeysaan trente mbuusi ndox sànni nañ ko ci stade bi wala boog ci biir terrain bi lii xam naa bu fekkoon ay bii la tey ndaw bii yu bari ndox baax na lool attention Léo dëgg na ka góol bi dëgg nañ ka góolu way jur dëgg nañ ko ci tànk bi mu daanu noonu moo daanu ba xalanku ndeysaan moo daanu ba xalanku 21 minutes ci deuxième mi bi mbokki internautes yi Laysé wuy jur ñoo sànni bal bi mu dem ci Laysé Mariste 2 ñooy doxal noonu attention lan mooy xew ñu ngay kërti kërti waa jooju xanaa deuxième mi-temps bi ci la dugg moo tëkk ak sagar gu xonq attention day dem waa ji ne ko doo fi jàlle Mariste 2 ñooy doxal attention Mariste 2 ñooy doxal sànni na bal ba attention attention góol bi génn na jàpp bal bi góol bi moo génn jàpp bal bi tëdd su ñaari rakk jóg xaw ma nag day wax asalaamualeykum wala boog day jóg tollu bal bi waaye su jot nag am ñaari rakk ñoom dañoo qualifié lay see way dañoo qualifié mo attention mbeuk nga bal bi ci ginaaw waye baxul gardien bi heureusement genn na japp bal bi attention carton jaune wala bokk jaag central bi mu yor bal bi bam mu ko xol xol xolat jox milieu terrain bi mu doxal jox ak sa central bi muy capitaine bi capitaine bi doxal ak pied droit joxat ak central bi mu doxal momit ak pied droit contrôle jox milieu terrain bi mu doxal touti attention song nañ ko song nañ ko nangu bal bi attention mariste Teude ñooy doxal contre attaque ndax day am profondeur mu jàll mu jàll attention score bi attention bal ba bal ba attention sànni nañ ko ci kaw mu dem ba tey mariste Teude ñooy doxal ci digg terrain bi ñoo yor bal bi am njaay indil Diop ba tey ñooy doxal way jur nangu nañ bal bi ba tey mariste Teude ñooy doxal ñoo bal bi am nañ juróom-ñeenti paas ak ci ak central attention lan mooy xew sànni nañ bal bi mu dem mu dem ci penku bi. xew lan mooy xew lay see way jur ñoo sànni bal bi noonu mu dem ci ak central bi mu doon ko mbëkk arbit nee na coup la di wax ne ne da ko bandum mbokk ndey moo koy jur abonné leen te partagé bu baax a baax sànni nañ bal bi mu dem ci attaquant bi joueur bi dal di koy tëg ëppal mu daanu ci suuf bal bi rogalaat dem ci góol bi gannaaw bi mu demee ci góol bi góol bi doxal way jur ba tey ñooy doxal bal bi perte nañ ko attention day dem day dem attention attention cornel bal ba génn na laysé l'ASC Maristes 2 ñoo génnee bal bi noonu wala boog ñoo am kornel bi noonu di wax ku fi dugg ñu ngi lay jaajëfal yaa ngi seetaan match bi kay ñu ngi lay jaajëfal ci seetaan boobu attention bal baa ngi dox sànni nañ ko mu dem ci axe central bu Maristes 2 attention attention attention attention attention ndax score bi day ubbeeku laay laa xëy la laa delloo bi ci numéro 3 bi mu sànni bal bi mu sànni bal bi allahu akbar allahu akbar daf ko contrôle arbitre daal di ne lii hors mu wàcc fa bal ba wàcc na fa bal ba 28 minutes maanaam ñaar fukki minutes ak juróom-ñett ci deuxième mi bi batay tey 0-0 la lay see way jur Mariste de batay ken kenn dugalugul sa morom ben bi waye match bi tang na lol Mariste de mi ngi doxal lay see way jur qualifié na ba pare motax bu gardien bi jappé bal bi day julli ñaar rak attention delo nañ bal bi ci ginnaaw gardien bi jëkk-jëkkal sànni ko ci kaw mu dem ci excentre bi ñu mbëkkaat ko attention contrôle poitrine attention ndod la yakuna ndodd damay métti ndodd damay métti arbitre woote na nee na Croix Rouge kaay leen def seen liggéey arbitre woo na Croix Rouge waaye di leen xamal ne tey gàmmuwaat dina am fële ci Ndiassane gàmmuwaat dina am fële ci Medina Baye ku ne xam na ne juddu yonent bi mag mariste de ba tey zéro zéro la bu jeexee ASC ASC Mariste 2 ak ASC Walidane calcul lay doon ci ñoom waaye ASC Wajur moom qualifié ba pare ASC Wajur qualifié na ba pare ci demi-finale yi l'ASC Montagne 6 qualifié ci demi-finale yi l'ASC Diarouwali qualifié na ci demi-finale yi l'ASC Neexle qualifié ci demi-finale laïcé Mbaxal nak dañ ka éliminé waye dal en tout cas attention profondeur baxul défenseur ba sanni bal ba mu dem ci numéro 8 sanni na bal bi ci ko don chercher gardien bi japp na ko sans problème gardien bi japp na ko brang bal bi ci axe central bi mu doxal mariste de ñëwaat bal bi di ko doxal nonu ñu duggal bal bi ci ruq ba waaye Laysé wuy jur ñoo sànni bal bi mu dem ci ak central bi mu mbëkk ko bal baa ngi dox Maristes 2 ñoo koy doxal ci wetu ndeyjoor gi di ko doxal ak profondeur attention attention attention oh quelle occasion quelle pour Laysé Maristes 2 ñi bëgg ñoo de attention baal ma grand maa ngi ciy jégalu maa ngi ciy jégalu wala daan benn point la am ndeysaan xale yaa ngi koy laajte ndeysaan xale yaa ngi koy laajte ndax bu ñu niilee wali daan day toog ba déwén Gabo waaye en tout cas 32 minutes fii ci stade baa nga ca kaw. waaye 34 minutes fii ci stade municipal de Hann Bel-Air final baa ngi moo jeexal daje bi lycée Mariste 2 ak lycée Wayjur bu match bi jeexee nii ah dana xaw a difficile côté wàllu daan bu yuxum Gueye ndax yaa fi nekkoon champion 2023 nga ñëw toog ci premier tour yi loolu dina xaw métti waaye nag yàlla moo jël ay mbiram. xool lu ko neex mu def ko mun mënu ci dara di wax bal ba génn na bal baa nga ci touche attention lay see way jur ñoo bal bi noonu diko doxal perte nañ ko batay ñoy rat bal bi diko doxal attention lan moy xew waye bal bang ci ginnaw delo nañ ko ci axe central bi mu delo ko ci bi gol bi garde bal bi dudna dudna dudna dudna ko dudna ko jox lateral bi mu doxal ak profondeur attention capitaine qu'est-ce qu'il va faire waye waye perte na bal ba daanu na dañ ka puus mu daanu baaxu trente six minutes trente six minutes première minute ak juróom benn ci deuxième étape ba tey ba tey caax yi yëngatoogul loolu la yàlla dogal zéro zéro waaye saan asiko yaa ngi jolli amateur de foot yaa ngi toog di suivre match bi dégagé nañ bal bi arbitre nee na coup la yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àddina bi way jur ñooy doxal numéro 7 mooy doxal sànni nañ bal bi mu dem ci point de penalty bi l'axe central bi génnee bal bi arbitre nena corner la encore une fois wala bok tous la dama gisul bu bax bal bi jenn na arbitre nena na len ko waay bah attention bal baa dem way way bal bi genn na lolou la yalla dogal bal bi genn na Tuba musa bal ba genn na arbitre na genn na attention contre attaque coup franc coup franc dafa tànk ba di bëggee ñu leen di bëggee di am contentement xam ne xam nañ fu mu tàmbalee waaye xamuñ fu mu yem di wax ne suñu mbégte day dañuy xam fan la tàmbalee waaye ndeysaan sa dëgg-dëgg xamul fan la yem di wax marché bi mu ngi toll ci 39 minutes kon juromi minutes wala bok jurom ben minute mo dess temps bi jeex ñu xam ndax walidan bu buy xum da fay qualifié ci demi-finale yi en tout cas samedi moy match bu mag bi nga xam ñepp ñëpp koy xaar mu dox ci digënté ASC Deggo Maris ak ASC walidan ci quart de finale yi nga xam moy am ci phase départementale yi ñu diko ko footballé ci stade municipal bu parcelle mbokk yi loolu ci luy baax la benn ruq du set mën naa ko waat yàlla ne benn ruq du set foofu waaw ndeysaan naa feebar ndeysaan xawoon naa feebar jàpp pour ma xam ne attention bal dox lay see wuy jur lay see wuy jur lay see ci demi-finale yi l'ASC Mariste 2 moom bu temps bi ni ah dana doy waar waaye en tout cas daal xam naa ne football nañ ba toll ci quarante-trois minutes ci deuxième mi-temps bi ba tey zéro zéro la mbokki internautes yi di leen jaajëfal yéen ñi ne France Belgique Allemagne Italie Turquie ba Dubaï Chine yéen ñi ne Gambie Guinée équatoriale Mali Ghana Éthiopie vraiment ñu ngi leen di ziar yéen ne fële ca Ndar Risaato Ross Béthio Dagana yéen ñi ne fii ci Ndakaaru Jali Diop di leen xamal ne ñoo ngi fii ci stade municipal de Hann Bel-Air 22 jot ba teg 17 minutes maanaam mi ngi bëgg a guddi. waaye xam naa ne ay minutes yu néew match bi jeex ñu mën a dem attention Laïc Maristes 2 ñu weer bal bi di ko doxal attention profondeur bu demoon ngeen xam bal ba daa waroon a jàll waaye défenseurs yi attention attention attention attention match ba jeex na kër ga boy na allahu akbar waay waay profondeur la def baaxul booy retraité da ngay mu gaaw bu ñëwee ci sa bi mën naa am gars yi def benn laa ilaaha illa bal baa ngi ca es bu weex ba dem na ci étage bu weex ba xale yi dañ koy for denc ko ah bal ba dem na ci étage bu weex ba ca penku ca penku penku stade ba. waaye ndeysaan stade bi ñëpp a ngi waaj a ñibbi stade bi ñëpp a ngi ñibbi temps bi jeex na temps bi jeex na c'est fini Laye Seye Laye Seye Wayjur Laye Seye Maristes def nañu match nul match bi jeex na Laye Seye Maristes moo qualifié ñoom ñaar ñoo qualifié laay walidaan bu yuxum géey toog na ndax war naa football samedi ci phase départementale yi ci phase départementale yi de finale digganteem ak Diego Maris fële municipal bu kon mbokk yi lii lañ leen fi doon toppal premier match bi nga xam ne moo fi doon am tey doxoon ci diggante jaarawaal yi